بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الحق ورافعه ومضل الباطل وواديه والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي نيو كيف كيب كو خامتيني ياغي تيوي جوتا يو مجالس جي nga xamne modi asalaf ma alquran bagi dembe nan lañ dan dundé ak alquran ci kër gi nga xamne mom moy la maison du qura au di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi bokk ak ñun bii la jotaay di nuyu sëriñ daara yëpp waaye ak képp koo xam ne yaa koy safoo tey nekk sunu juróom-ñetteelu jotaayu majaalis waaye ñu àndaat ak mawaqif yooyee nga xam ne moom lañ doon wax taxawaayu salaf yooyee sunu jotaay bi weesu ñu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay nettali yoo xamante ne ku nekk ci ñun war ngaa jàjjeeku dellu ci alquranul karim ñu wéy ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi. يا عائشة دفاي نتلي في حديث الترمذي كي nga xamne mom modi baghawi يا عائشة نني قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة الله أكبر آية واحدة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بها ليلة كاملة <clears throat> يا عائشة نني ينتبي صلى الله عليه وسلم نافي لنا قد بلمب تبيني آية نيتاري فاتحة سكبري muy tari laaya googu di ko baamu di ko baamu di ko baamu ba fajar allahu akbar lu mel noonu imam annasai daal di koy feddali ci xadis ba nga xam ne moo ko génnee ni ki noonu ibnu maja wa gayruhum mu ne qaama annabiyu sal allahu alayhi wa sallama bi qawlihi in tucadibhum fa innahum cibaduk wa in tagfir lahum fa innaka anta alazizu alxakim yuraddiduha xatta asbax yarkacu wa yasjudu biha waxu buur bi subhanahu wa taala bi muy wax naan in tuadibuhum yàlla soo leen bugalee dee fa innahum ibaduk mu nekk wax yoo jee nga xamante ne ca suratul maida yàlla awee woon ko ca lamiñ yonent yàlla isa yonent yàlla isa ne yalla sa jaam yi nga xam ne ñoom tee dañoo topp yoon bu dëng gi in tuadibhum soo leen bugalee de fa innahum ibaduk yaa ko sañ yaa ko sañ lanu wa in taghfir lahum soo leen jéggalee fa innaka anta al azizul hakim yàlla da ngaa baax soo leen jéggalee da baax sa mbaax moo toll noonu lu mel noonu mu daal di gën a leer ba léegi waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko nettalee ci téere yi benn bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay jàng ñaari laaya yi mooy laaya bi ñu gis sànq ak laaya ba nga xam ne ca lamiñu yonent Yàlla Ibrahim alayhi salaam te bi dafa jàng waxu yonent waxu yàlla bi nga xam ne daf koo nettali ci lamiñu Ibrahim rabbi innahunna adlalna kathiran min annaasi faman tabi'ani fa innahu minni ci suurata Ibrahim yonteel Ibrahim ne yàlla innahunna yaani al asnaam wa tawagiit maanaam ñi nga xam ne ñooy xërëm yi ak ñay woote ci seen yoon ñi nga xam ne dañuy naxee adlalna kathiran min annaas réeral nu te sànq lu baree bari ci mbindeef yi nañu ñu bari ci nit ñi waaw fa man tabi'ani waaye ku ma topp man yonent yàlla Ibrahim yàlla fa innahu yi man kooku daal laa garanti kooku laa res waaye ña ca des moom dañoo jël beneen yoon yow yaay xool nan ngay doxalee ak ñoom yonent yàlla Muhammad bi mu jàngee wax ji ak Ibrahim na mu toll ci kanamu yàlla xalilullah Ibrahim nekk xaritu yàlla waaye yowmal qiyaam mu déggaasi ay responsabilité am ci ñi nga xamante ne dañoo wàccoon yoon wa mu ne yàlla ñi ma toppon rek ñooñu laa garanti jii mu geesu aaya bi ñu waxoon sànq ca lamiñu isa alayhi salaam in tuadibhum fa innahum ibaduk wa in tagfir lahum fa innaka anta al azizu al hakim yonte yàlla isa itam yowm al qiyama mu ne yàlla ñii nga xam ne dañoo wàcc yoon wi in tuadibhum soo leen bugale dee fa innahum ibaduk yaa ko sañ say jaam la yaa leen moom wa in taghfir lahum soo leen jéggalee nag fa innaka fa innaka anta al azizul hakim yow di yaay buur bu màgg bi yaay buur bu xarale gi yaay ki moom te man lépp soo leen baalee dangaa baax rek sa grandeur la yow yàlla buur bi subhanahu wa taala xoolal ma ñaari yonent yi ak nanu toll ci buur bi subhanahu wa taala waaye ka wàcc seen yoon bu yomal qiyaamee ñoom ñu daal di dégager seeni responsabilité kon yow mi di top jotay bi ku la ne defal lu la neex bu yowmal qiyaame ma la res wallahi alazim nax na la bul naxu mukk laa tanxadia fatahalak bul nakhu nga daal di alku yunti al Muhammad bi mu jange ñaari laaya yi ak tolluwaayu yi lay yonent fa rafaa yadayhi jasasi la dadi yekati ay loxoom wa qal allahumma yow yàlla ummati ummati ينتي يالا محمد دادي تالال اي لخم من سما خيت سما خيت لا اله الا الله وبكى مداري جوي موكي خول ينتي يالا محمد نيم دندي القران روي لين تي صلى الله عليه وسلم نانو دندو القران نانو دندو القران وبكى مداري جوي فقال الله عز وجل تي ساسي يالا بور سبحانه وتعالى دادي وخني يا جبريل اذهب الى محمد yow Jibril kaay kaay demal demal ci Mouhamed gaaw demal ci moom parce que ci alquran waxoon na leen dafa am dirasa boo xamante ni ñu bare ko war a xel mooy yàlla ni muy sàmmoowee sentiment yonte yàlla Mouhamed alayhi salaatu wassalaam yonte bi su kontaanee rek nga gis yàlla kontaan yonte yàlla soo ko defee lu ko métti nga gisi yàlla day réagir ci saasi hadihi mawaqif ci mashaa'iru nabi sallallahu alayhi wa sallam inchaa rabbi azza wa jal daañ ci ñëw bu soobee yàlla yàlla daal ne jibril demal ci muhammad jibril mooy malaaka bi nga xam ne moom la yàlla di yónni ci yonent yi annaamuus yàlla ne ko demal ci muhammad lan la jibril di def yi wa yalla aalam moo gën a xam lan la yonent yàlla muhammad wax ba lan lay jooy mu ne ko fasalhu ma yubkiik nga laaj ko lan lay jooy demal ci moom nga ne ko yaa muhammad lan ngay jooy fa ataahu jibrilu alayhi daal di ñëw fa saalahu jibril daal di ko laaj ne ko yow muhammad sa borom moo ma yónni nee ma lan ngay jooy maa yubkiik ma alladi abkaak lan moo la loo yow Muhammad alayhi salaatu wassalaam fa axbarahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ko li ko jooyloo ci ñaari laaye yi wa akbar fa allah bi jibril delloo ci yàlla ne ko yonteela Muhammad dee nee ne lii ak lii lay jooy ca Isa na mu dégager ay responsabilités am ca ñi nga xam ne ñoo wàcc yoon wi Ibrahim na mu dégagé ay responsabilité am ndax yowmal qiyaama ahwaalu yowmal qiyaama ñëppay tiit ñëppay jaaxle ndax yow yàlla yow rek yaa moom lépp bu boobaa yàlla daa di ne yaa Jibril yow Jibril idhab ila Muhammad dellul ci Muhammad delluwaatul ci moom dellul ci moom faqul soo demee nga ne ko inna sanurdika fi ummatik wala nasuuk soo demee nga ne ko daañu ko gërëm loo maanaam daanu ko defal daanu ko daanu ko defal ba mu gërëm duñu ko rusloo mukk ci xeetam allahu akbar maanaam dinaa la neexalu ci sa xeet ah, sallu ala wax leen allahuma salli ala sayidina muhammad sallu ala nabi nii la ko yàlla waxee sa nurdika ala ummatika wala nasuuk yonti yàlla muhammad daañu la neexalu daanu jëflanteeg yow ci sa xeet ba nga kontaan duñ la rusloo mukk duñ la def ci ñoom loo xam ne lu la métti la mbokk yi ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dundee alquran nee na leen fan yi sunu mawtoo moom mooy lan mawaqibu mawaqifu salafi saalih wa ahwaluhum maa tadabburi alqurani alkarim seeni taxawaay ak nañu daan mel sunuy càmbar alquranul karim ndax ñun ñu mën a jàngee ci ñoom mën a càmbar alquranul karim ما كان من ثواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته